di wax ne li ñu fi dajale tey ñun waa mouvement Madakaw dañu amoon initiative fu créer benn mouvement muy mouvement développement mouvement social ñu tudd ko Madakaw mouvement ànd jàppale askan wi. yàlla def na ne ci suñu rencontre yi nga xamante ne si ne ñu ngi ko doon def euh, yenn bërëb yi nga xamante ne si ne day aaji social ci dëkk bi ci suñu dox ñu dem ba dugg ci banque de sang bu hôpital Matlaboul Fawzeyni ñu xamaloon nañu nañu ñoom seen banque de sang bi dafay manqué lu bari mais rawatina nag bu ñu dikkee ci màggalu ba dañuy dem ba dakaar Kër mbay Fall dafa sàkku ji deret bi ñu ñëwee euh, commission sociale bu mouvement Madakaw dajee réunion ñu waxtaan na dëkk bu toll ne Touba di dajale plus de un million et quelques habitants ñu naan un million nangam defe naa ne ñu am benn banque de sang jaaduwut ñu di fi bàyyi population bi di dem di ko sàkku jee faneen te liggéey Serigne Touba romb na foofu bi ñu ko waxee nag ci la Madakaw jaayante tudde ko addee safar gi mayam deret ñun dañuy gis ne kenn ku ci nekk bu ñu duggee ci safar gi fànn bu nekk la murid ji di wootee waaye waa mouvement Madakaw nag ñun nañu wootee mooy dañu dajale murit Serigne Touba yi ñu fexe naka la ñuy waxtaanee ak ñoom ñu jàppale suñu banque de sang bii fi nekk di hôpital Matlaboul Fawzeyni joxe addee Serigne Touba jël ci seen deret bopp joxe ba nga xamante ne si ne képp koo xamante ne si ne andi nga fi tawat yoo xam ne manquement deret la boo ñëwee danañ la yóbbu ci hôpital bi incha allah rabbi faj la ba nga wér dool la deret nga dem képp koo xamante ne si ne da doon ñëw am ndog dal la ci yoon yi nga manqué deret boo dikkee hôpital Matlaboul Fawzeyni danañ la mën a jàppale defal la deret nga dem ndax dañ ne liggéeyub Serigne Touba romb na ci ne nit di ñëw amum ndox ci yoon dikk ba ca banque de sang bu hôpital Matlaboul Fawzeyni bi ñu ne banque de sang bi deret jeex na fi initiative boobu la mouvement Madakaw amoon ba tey di quatrième édition bi tax à chaque fois ñu di ko jàppale hôpital Matlaboul Fawzeyni ñoom nag seen déplacement dafay am réussite totale ndax bu ñu amee 73 donneurs loolu mooy wane ne na ba ñu ko dalee jeexagul waaye nag dafa tombeek bis boo xam ne day bis bu bi ubbit ak juma muy euh, juma yi Serigne Cheikh Saliou jee nga xamante ne si ne ma nga ca janatu ñu bëgg a yeewee suñu bokk journaliste yi kon su ma sañoon dinaa xam lu ñu amagul nee na ma actuellement lu ñu amagul man na cent te waa euh, Dalanga bu ñëwagun waa Ndind ñëwagun te ñooñu ay selir la ñu monté woon foofu di liggéeyandoo ak mouvement Madakaw ñenn ñu dut euh, murid Serigne Bamba yi di population Touba xam nga dañuy wax Madakaw ñu bari dañu ko identifier ci mouvement politique mais Madakaw politique sociale lay politique gaa ne dañuy politique ñun mais politique développement politique social bi ñu woote nag euh, suñu journée don de sang woowuñu parti politique woowuñu cité benn association dañoo woo murit sëñ Bàmba yi woo julliti yàlla yi yi nga xamante ne si ne seen pas-pas ak seen yéene mooy ca ña nga bis bu nekk di def te yàlla rek tax ñu ne nag nañu dajee tey la cinq septembre fii ci station Selo Baye Mass Diop bi route de Mbacké ñu jaayanteeg Serigne tubaa jël ci suñu deret bopp ji jox ko hôpital Matlaboul Fawzeyni pour ñu mën a leen a jàppale ci seen banque de sang bi ba li nga xam ne moom la ñu soxla ci donneur lépp incha allah rabbi ci màggal gi ñu mën ko am. bi li ko waral mooy Madakaw dafa am ay partenaires ku ne xam na ne développement ku ko wax wax ko ci ay poche ay ndaw lañ yu gëm suñu bopp yu nekk ci département bi ñii ñi ngi dëkk Mbacké ñii ñi ngi dëkk Taïf ñii ñi ngi dëkk Dalangaabu ñii dëkk Mesere parce que initiative bu ñu amoon mooy département de Mbacké 16 nekk ñu monté fa ay cellules ak 94 villages yi nga xam ne mi ngi nekk Touba yàlla nag dafa def ne dañoo am ay xarit am ay partenaires yu nekk ci biir dëkk bi ñoo xam ne dara ñoru leen lu développement social am na ci ñoo xam ne liggéey nañ ba suñ borom ñu bëgg a liggéeyal sëñ Touba mais mënuñoo jóg seen tànk di dem kon buñ gisee mi ngi dem ci prison yi Madakaw mi ngi jàppale jeunesse bi ci sport ci bépp fànn Madakaw mi ngi organiser ay journée de descente di def lu nekk Madakaw mi ngi tabax ay juma ak jàkka nii may wax ak yow barki démb lañ tabax jàkka joo xamante ne seen kër sëñ ñaan lañ ko tabaxee ndindi te ay bonne yu nekk ci biir dëkk bi donc ñoo yëkkati seen poste jox ñu Madakaw benn fond boo xam ne mën na ko defee dara waaye nag yàlla dénk na ko ay partenaires yu nekk ci biir dëkk moo waral bu di leen ko tudde di ko ànd ak ñoom ñu nu ciy accompagner ñu di sant sant Touba ca kanam waaw li ñu ci njëkk a def mooy kuréel googu nga xam ne damay xam ne kuréelu Serigne Touba nit nag mën na initier dara ngir defal ko Serigne Touba fii ci dëkk bi waaye na murid yëpp repéré na Serigne Touba ñaanoon na mbooleem lu baax lu nit ñi wuti ci adduna bi rek bis dana mas a ñëw ñu di ko sàkku see fii te loolu la gëm te mooy lam ndax na ko Serigne bu baax ba doon waxee ne kaasu café bii ma yor di ko naan mu wér na ma ne café la waxi Serigne Touba euh, ciy doxee loolu ñu ngi koy rafetlu euh, di leen bu baax di ci ne mooy état bi moom na ñëw accompagner leen accompagner dëkk bi Touba dafa nekk ab commune nekk commune boo xam ne wax ne mooy deuxième ville du Sénégal kon jot na tey état bi wërta xaar dara ndax Cheikh Abdou Lahad Mbacké baax ma dafa daan wax ne ñeent yi ko bëgg état nga koy ñaan mooy aw yoon ndox courant ak sécurité ñun dañu bokk ci réew mi dafa naa bu ñu xoolee mu li ñuy participer ci biir gafak ak réew mi bu ñu téye woon suñu loxo économique Sénégal daanu kon Touba amul benn cible bu ñu ciy xaar lu di seen i responsabilité la Touba ca kanam lu muy def sëñ Touba la koy defal ci biir dëkk bi ci wàllu assainissement mais loolu état la war kon nag ñun ñu ngi lancer un en tant que mouvement ànd jàppale askan wi mouvement développement bu nekk fii ci dëkk bi nga xam ne suñu xar-xar suñu xeex ñu dox suñu yitte mooy département de Mbacké raw ci département yi ci Sénégal mooy président de la République yow mi fi nekk ñëwal nga accompagner kuréel gi fi nekk di Touba ca kanam ci liggéey bii ñuy liggéey ndax yow la waroon tey bu doon tey na ñu ngi koy def ñëwal nga accompagner mouvement na kaaw ci initiative bi nga xam ne am na ko mooy liggéey département de Mbacké non duñu ne man ma ne defagu ko xam naa ne am na lu mu ci def euh, ñi ngi sant bu baax man opérateur économique laa di liggéey ci wàllu darachide Euh, waaye ku ne xam na ne président Macky Sall am na ay partenaires yoo xam ne ñu ngi jóge ba Sine di ay Sénégal di ñëw fii. kon jàpp naa ne ci wàllu gerte moom amul dara lu des ci réew mi ni may wax ak yow te gerte daana fi toog ba nawet fekk ko fi fii may wax ak di la 25 septembre tey ku bëggoon un kilo gerte doo ko génn ci réew mi kon développement foofu la mën a kon defe naa président la Macky Sall li nga lii mu créé tey nga xamante na li mu ci recruté ci ay doomu aadama te lam ci jublu woon def gis na am na ay sénégalais yoo xam ne ay ndaw la lañ ñu ngi ci biir dëkk bi te ñii war nañoo toll ci liggéey xëy na liggéey mu ñu dañ leen jàppale foofu ci wàllu gerte gi ñu nekk ñun ñi rek ñu ngi ci employé plus de ay centaine de personnes yoo xamante ne si ci li koy defee mooy ci accompagnement président la République Macky Sall parce que moom moo ñuy dooleel jàppale ñu boole ñoog banque yi ñu ay financier yu ñu a taxawee tey ba ñu mën a wut foofu ay employé pour